ami internet Mak TV nuyuwaat nañ leen comme niñ ko faral di defee saa ne rek tey dañ demoon euh, fi nga xam ne mooy géeju yaraax rek mu amoon euh, jàmmaarloo bu metti ci diggante ñi nga xamante ne ñooy nappkat yi ndax napp nappkatu dëkk bi rek nee nañ dañoo bëgg rek euh, ñi nga xamante ne mooy borom gaalu fele-fele yi maanaam ñi nga xam ne dañoo wàlliyaan si rek jóge ci dëkk bi jàmmaarloo bi nag demoon na ba ëpp leen loxo ba mbooloo bu takk génnoon na ba sànnante xeer amoon na fa sànnante ay bant ba ñi nga xamante ne rek euh, ñooy nappkat yi am nañu si bëri ñi nga xamante ne jamono ji ñuy wax ak génn ña nga ca l'hôpital ci diggante dund ak dee waaye yemuñu ci lool rek ndax nappkat yi tamit euh, mer nañ ba futt ba taal li nga xamante ne mooy euh, gaalu ñi nga xam ne mooy borom gaalu fele-fele yi ginnaaw loolu nag eh, ci la autorité dëkk yi rek eh, jóg daal di ñëw waxtaan nag ñi nga xamante ne ñooy waa dëkk bi ba force de l'ordre yi sax comme ni ngeen ko gisee nii ci eh, image yi mën mujjee nañu ñëw pour calmer li nga xamante ne rek mooy confrontation bu amoon ci diggante ñi nga xamante ne ñooy pêcheurs yaraax yi ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee les campagnards maanaam ñi nga xamante ne ñoo yor gaaru fere fere yi jóge ci seeni dëkk ñëw ci dëkk bi rek pour am li nga xamante ne moo di jën ci loolu rek Mak yi tàllal na micro yi ñi nga xamante ne ñooy waa dëkk bi ngir ñu wax rek seen xalaat ak lan moo leen metti salaamaaleykum sëñ bi nee na maa fi rek tur bi nana la man lan moo waral coow li yëpp ñu waral nekk si dëkk bi di liggéey fi lañ juddoo fi lañ ba nga xam bañ juddoo ba léegi xamuñu sax li mbaale fele-fele fele-fele luñ ko laal ñu filature lañ xam teer fi nga nekk ni nii fii koo xam-xam ne cosaanam mballaaw la ba mballaaw ba jeexee taxaw borom borom moom lépp mbal ma ma filaa lii mbalaaw la mbalaaw la wala fi a tourné amul leneen est ce que comprendre wax mais tey dendal tey jóge Fass Fass amatul jën Ndar amatul jën Lompul amatul jën Kayar dañ leen fa dàq dañ leen Yoof dàq leen Tëngéej dàq leen Caaro yi dàq leen Barñi dàq leen fépp foo xamante ne rek sa tefes bëgg dara rek dañ leen fa dàq soxna si nee na maa ngi fi loo dudu Ami Ngom lu la métti fele fele yi mbaal fii ñoo metti ñoom ñoo tax suñu papa yi mënatuñu am jën mënatuñu am dara jugee seen dëkk ñëw ba fii di yàq de loolu nekku yoon leen la ñuy ñaan mooy gouvernement bi na si jàpp ñu dem wala ñu ñu faje ko suñu bopp après mu jeex. ñoom lan na ni. ñoom dara lu leen fi bàyyi ñoom dara ñoom dañuy mbaal ñoom ñooy am ba ñun instant bi te nañ ñu dem géej depuis trois jours dañu ni dem ñu géej ñu ngi ni ak sergaay ñoom chaque jour ñu ngi dem te caa si ñu mbaalee baaxul day dàq jon ñu mënatuñu am dara. fa metti bi jullit sax waru koo def jullit waru koo def moromu jullitam ndax waroon nañoo mën a waxtaan sax négocier ku nekk ñu xool ni ñu koy waaye nii lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw man ma ci kenn nag sama mbokk sama ku ma bokk ndeeg bay laa ci yemale ku deful lu dul dëgg man Daba man dama la koy wax lii du dëgg du yoon man bàjjenu gox laa fii ci suba ba léegi maa ngi woote aw ma ku ma ragal awma ku ma ci tiit sama liggéey la lii dafa ñaaw di rafetul ah seesu ma si mbokk de seesu ma si xarit seesu ma si kii li ma soxla am naa ko dinaa ko jébbal ñooñu buñ leen wooye dinañ laaj lu leen tax ñu def lii parce que amul mool amul benn bu su am teeru boo war a te ba ñu juddoo bokk ñun surtout voilà ñoom dañu jóge fii dem dem Yoof mhm. Kayaar dem Mbuur liggéey. bu ñu leen defee ne lii est-ce que dina baax. ok c'est que dina baax lii man na yee ëllëg leneen te du ma man de laa wax fii ma nekk du fi amee. moo tax ba xale ah. <laughs> centaine de millions ñu yàq ah. centaine de millions ñu yàq kàgg du bees ngeen ñaata la. dégg nga centaine de millions ñu yàq projet bi mi ngi ça coûte 3 millions 500 francs ah. mbaa mi ñëwagul boo koy xayma day dem 1 million 500 francs machine bi ñëwagul. dañu yàq de dañu yàq yàq nañu nag man nag maa seen porte parole dégg nga Abdourahmane Mbaye maa seen porte parole lu yoon wax incha allahu rabbi daan ko topp daan ko suivre ba ko yoon toogale incha allahu rabbi waaye ñi xam ñoo war a dal dinaa leen dalal ñu noppi ñu séesew yoon def yoonam. bi sunu mbaal la ñu fekk fii ñuy liggéey mbaal maa ngi nii soo paree nga caméra nga jël ko démb fi la nekk di liggéey nit moo warul xeex. ñoo fekk ay nit fi jël arme du leen ko dóor tey jii bakkan bi dem bakkan su rotee ñun ñooy perte ñoom seen alal lañuy sàmm mais nit li sàmm alalam bu mu gaañ ñun gaañuñ kenn amul kenn ñoom kuñ si gaañ. voilà amis internautes lii lañ leen indiloon tey ci euh, seen reportage di leen jox dig daje beneen yoon ci yeneen i xibaar sur Mak TV.